asalaamualeykum maa ngi nuyu mboolem waa daara Hizbut Tarqiyyah biir réew mi ak bitim réew di kàddu yu gàtt rek yoo xam ne kaddu yu cant la ndax tey bi ñu xëyee almuridiya ak daay boo xam ne metti na lool ci saayir sax ndax euh, bu dee ci wàllu matériel daanaka yàq na fa lu bari waaye li tax may jiital cant gi mooy kenn loruwu fa loolu nag kenn amul njëgam suñu borom moom suy indi ab dogalam mën naa ànd ak sañ-sañam noo xamante ne nu ko soobee la koy defee waaw nun ay jaamam lañ moo sañ a def sañ a ci suñu kaw kon bu fekkente ne matériel bi moo yàqu te matériel bi lu bari ak lu ndax ñun lépp numérique la waaw lu muy seer seer xam ne ñun suñu cant ci Serigne Touba ak suñu cant ci suñu borom ñun lott nañ ci ndax musal nañu dimbali nañu te it xam nañ ni it buntu bi yokkute la loolu mooy li ci am solo ma bëgg membre yi xamee ko noonu euh, xam ne 2014 la Al Mouridiyyah doon première chaîne IPTV au Sénégal kenn du leen wax ne lu ko jiitu mosoon na am chaîne IPTV euh, ginnaaw bu loolu amee suñu jàmbaar ji si yal nañu ko yàlla fayal taxaw ba mu doon seen boo xamante ne waa Sénégal ñoom ñoo am nattub yaakaar ne benn seen la waaye Almouridiyyah dépassé na benn seen télévision yu bëri la yu boole ci benn barab ndax tey jii boo jëlee euh, euh, li ñuy wax canal walla nga jël lu mel ni TNT yooyu benn seen nga fay def nga fay fekk yaakaar ne Almouridiyyah benn la waaye boo demoon bitim réew fu mel ni. États-Unis wala Angleterre wala Canada fekk fa plateforme yu mag yi nga xam ne euh, IPTV la bu mel ni Roku masalan mais boo ci duggee foofu ay junni junni seen nga fay fekk waaye Almouridiya am na fa seen yu bari boo demee bu la neexee ngay seetaan Almouridiya arab rek doo fa dégg wolof bu ne neexee ngay seetaan Almouridiya anglais rek doo fa dégg leneen bu la neexee nag nga jël ci almouride bii nga xam ne moom lañ jox TNT bi jox ko canal jox ko TV d'Orange jox ko ñeneen kon loolu kon moo lay wax loolu lépp ay équipement la woon diggante streaming ak diggante li nga xam ne moom ay serveur de données la waaye wala muy ay fibre optique yoo xam ne dafa agsi ba ci locaux yi wala mu jël ci ay équipement wala logistique wala ay régie wala rajo wala vidéo waaye loolu lépp du dara bu nekkee poussière it sunu borom yeesalaat gi boo ko dendalee sunu pas-pas di nga xam ne lu baax lay doon te it dafa am lu yàlla dimbalee isbital xi ci li muy doxee na mu gisee woon IPTV te nit ñi tollooguñu fa woon fii ñu toll nii ñun sunu gis dafa jël fii ñu toll tey moo tax bu lii dogal bi ñëwee danga ci xamee ne lu ko gën day sofu fi saasi te du am dogantal ndax innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariban loolooy doxalin Hizbut Tarqiyyah waaw saa bu nit ñi tolloo ci tey rek xam nañ ñun ñoo ngi ci ëllëg wala gannaaw ëllëg waaw loolu nag dara waralu ko dul pas-pasu di jiitu ndax Sëñ Tuubaa mi ñu liggéeyal moom daraja yëpp eh, ndam yépp médaille yëpp da koo làq moom Sëñ Tuubaa loo koy defal rek daa war a gën boo koy bayal tool moo war a gën beneen tool bu dul moom boo koy liggéeyal ci communication booy liggéeyal sëñ Touba ci dara da ngay fexe keneen ku ñu defal leneen ku ne nga xam ne sëñ Touba ci gën a yaay bu dee ci tool bu dee ci communication bu dee ci éducation boo yar fi ñu toll nii nii àdduna si di commencé xam sax ne alxuraan waa Touba eh, ñoo moom alxuraan liggéeyal sëñ Touba rek nga koy tudde ndax am na ñoo xam ne dakaar lañ ne yor fa daara di jàngal ay gone ñuy jël ay médailles kon loolu kon moo am solo eh, ci biir loolu kon loolu prospective. ak innovation foofu muy feeñ ci booy liggéeyal Sëñ Tuubaa loolooy aaya boobu ma doon wax innahum yarawnahu ba'iidan wa narawhu da ngay da fexe ba xam ne li gën li gën Sëñ Tuubaa moo ko yeewu loolu moom te l'avenir it c'est Sëñ Tuubaa waaw loolu moo ci am solo donc daara yi laa bëgg rek ñu ñu góorgóorluwaat te xam ne almouridiya euh, la nekkoon lépp ñun noo ko fa def bu dee nag en tant que institution boo xam ne dafa am kayit yëpp am agrément yëpp loolu kon euh, faw ñu informer ci de droit loolu jotewul dara euh, waaye nañu xam ne almouridiya moom euh, outil la boo xamante ne c'est un joyau boo xam ne day liggéey Sëñ Tuubaa te waa Hizbut Tarqiyyah yi ñu ko teg seen loxo ñoom gàttandu nañ ko ak seen xol ubbi ko tey jii rek fii ma toll suba ak léegi ñi nga xam ne ci waa almouri ci waa Hizbut bu nañu ay matériel ak équipement di ko indi naan ma nangam wala nangam lan ngeen ci gën a soxlawoo ak nangam ak nangam lan ngeen ci gën a soxlawoo mënuma leen a wax nu mu toll te dara war la ko lu dul ñoo xam ne dañoo jël seen xol boole ko ci liggéey bi xam ne